taxaw fii tey euh, mooy gannaaw bi ñu dajaloo ci au niveau du rectorat waaw sëriñ sëriñ Ahmadou Gueye le directeur du l'UFR Ecomige euh, gannaaw tey li waral tey jataay bii nii mooy pour leeral askan wi leeral sénégal yi leeral parents d'étudiants yi ak parents d'élèves yi que li xew université euh, nuñ ko mën a tuddee mooy ay perturbation mooy ay groupe d'étudiants yu nga xamante ne xàmmee nañ leen Euh, ñoom ñoo ñëw pour saboter université bi te loolu nag mi ngi commencé depuis le 27 juillet exactement ci la ñu ñëw fekk ñuy def examen ñu yàqu ko euh, malgré tout euh, université bi jël ay mesures comme traduit leen commission discipline ay daan jóg fa daan yi nga xamante ne yu mel ni ñu dissoudre coordination bi mooy bi nga xamante ne structure bi nga xam ne moo regroupé étudiants yëpp ak amicales si nekk si UFR yi ndaxte ñetti UFR ñeenti UFR ñoo am ñetti UFR ak benn institut ñu tas leen pour que mën a continuer liggéey bi mais bi loolu amee ba léegi euh, ñu suspendre aux cours yi ba le 4 ci 4 la ñu reprendre depuis le 4 octobre ba ñu commencé ba léegi euh, cours yaa ngi dem bu baax a baax parce que jot nañu def ay examen yu bari euh, ci UFR ñetti UFR ak institut bi par exemple boo jëlee UFR bu mel ni UFR SDD mooy santé et développement durable ñoom prennañ seen examen premier semestre yëpp. am na sax formation bi tudd médecine ñoom pare nañu lépp soo jëlee ECOMIG bi nga xamante ne mooy UFR bi gën a mag ci en terme de nombre moom ñetti département la am boo xam ne am na venn formation vingt neuf formation yi ñaar fukk ak juróom yëpp jot nañoo def seen ay examen ba pare ba jàng semestre deux bi avancé na bu baax a baax daanaka toll na ci ay six wala sept semaines kon ñeent rek moo des yoo xamante ne tey jii lañ leen programme woon ñu war koo démarrer am na nag ay étudiants yu jot a ñëw pour ñu leeral am na ñu jot a ñëw Euh, def examen première épreuve bi waaye ngir wan leen rek ñun suñu taxawaay pour nu ñu bëggee nit ñi xale yi ñëw jàng dañ ko mus a dañ koo décaler bu yóbbu ko ba suba pour permettre parents d'élèves ñu mën a ñaax xale yi ñu mën a ñëw jàng si. lu mel ni statique aussi seen examen yi dañ ko perturbé woon au premier semestre second semestre aussi bi ñu ñëwee fii euh, ñu ngi ko ñu ngi ko waroon programmer ci fan yi gannaaw bu économie jeexee parce que fii bu ñu def examen waa droit nga ñoo gën a bari bu ñu def examen yi dañuy arrêté lépp. parce que ñoom dañoo toll ci ay mille yu teg maanaam junni yu tegal moo tax ñoom ñëpp dañuy xaar moo tax ci biir liggéey bi dañuy am intelligence boo xam ne mën nañu doxante suñu biir ba ñi bu ñu defee examen pare dañuy may ñeneen ñoom koy bu écoulement pare woon kon waa set ñoo war a ñëw ñoom tamit jël en fii ak liggéey mais malheureusement tey jii nii ak lu fi xew euh, si fan yi néew yi gis ngeen ko donc loolu nag euh, mooy li nga xamante ne tey jii moom la ñu constaté fii ISFAR moom ñu ngi def seen doxal seen mbir bu baax a baax seen examen seen cours yëpp ñu koy def bu baax a baax donc kon tey boo xoolee euh, surtout Bambey bi nga xam ne mooy surtout principal bi moom la problème bi am mais li ñu bëgg a xamal ni ñi mooy il faut que opinion bi xam ne examen mu mu examen yi am na bu baax a baax a baax a baax tey jii boo doon xool plus de 75 pour cent de taux d' exécution examen yi war a am premier semestre def nañ ko si ñeent ñett ñett UFR yëpp ak institut kon tey jii euh, ñi si des bariwul te ay fati gën a mag a mag a mag lu mel ni ingénieur juridique ni ñu ko waxee sànq ñoom toll nañ ci ay junneeg nangam ñoom def na seen examen ba pare kon tey jii ñu ci des tey bariwul pour que ñëw bi xam ne Bambey euh, ni ñu koy waxee demeewul noonu donc examen yi mi ngi am enseignement yi mi ngi am donc la preuve mooy tey étudiants yi ñëw nañ pour def waaye lu ñu bëgg a xam rek mooy luy indi force de sécurité yi fii du pour tiital étudiants yi déedéet ndax ñoom seen bopp sax ñoom ñoo doon réclamer dañoo bëgg a sérénité dañoo bëgg a dañoo bëgg a parce que ñoom dañoo sonn ci grève bi loolu moo tax aussi. ñun aussi en toute responsabilité ñu xool ak li fi commencé di am violence yi grave yu am yu éviter yi ñu ne aussi ñu delloo instance bi nga xam ne mooy instance bi gën a kawe mu autoriser recteur mu indi ay force de l'ordre fii pour que ñu mën a stabiliser université bi pour permettre personnel enseignant bi jàngalekat yi jàngale partie bi ñi nga xamante ne tey ji ñoom ñooy yore service administratif ñu liggéey waaye tamit étudiants yi seen biir bopp aussi ñu mën a am sécurité mën a am protection mën a def seen examen ci calme mën a def seen ay cours ci sérénité loolu mu wund te ñu indi euh, force de sécurité yi mais loin s'en faut la preuve mooy force sécurité yi ils se sont très très très bien comporté en très bon exemple lañ joxe de de de de de de de républicain de civisme pour wax la rek ne la tey jii c'est nous dans nous étudiants yi li leen di ñaan encore fois de plus mooy ñun nañu ñëw. nañu ñëw pour que euh, pour que ñu ñu ñu def seen examen def seen cours que UFR yi ñoom ñu leen conseillé ñoom pare nañ pour dialoguer ak seen ay euh, jarbaat ak seen ay doom ak seen ay étudiants donc pare nañ pour dialoguer ak ñoom euh, ñu waxtaan ci yeneen mbir. je pense que tey loolu moo gën a rafet pour ñoom ñëpp ñu xam ko opinion bi xam ko que université Bambey jàmm moo fi am que université Bambey dafa am benn groupe d'étudiants boo xam ne ñoo ko bëgg a yàq te aussi loolu duñ ko nangu. parce que aussi ay responsable lañu ñun ñoo ñun lañu chargé pour ñu doxal fii yëpp jàll si yoon kon duñu nangu aussi ay ay xale ñëw di ko yàq te majeure partie bi yëpp donc ñoom ñëpp d'accord nañ ne dañoo war a ñëw jàng parce que sonn nañ ci grève bi sonn nañ ci grève bi